bëgg rek euh, euh, taxawandi bu baax mooy équilibre en terme d'échange yaakaar naa ni sa question itam foofu la doon ñëw mooy équilibre nag mënul am ci coopération malheureusement parce que bu fekkee ni réew bu am doole ak réew bu ñàkk doole ñooy jëflante li ci gën a bëri rek réew bi ñàkk doole day subir conséquence parce que kële dina ko xaw a indil tuuti diktaawam ba xaw ko étouffer ba réew bu amul doole bi dina dina am rek lu mu ciy ñàkk paasan bu fekkee am nga junj euh, nañ ko fii la dernière fois en euh, disant que euh, c'est une relation bilatérale entre ñaar ñaari dëkk euh, li nga ci wax leer na nañ dégg nañ la malheureusement ñun ñoo ëpp lu ñuy ñàkk que Turquie. Mm. Turquie day gagné énormément mm. par ses mm. entreprises par mais mais lii jóge fii di dem Turquie kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. moom dafay def commerce ak ñun di ñu imposer ñëw dama leen di defaral dama leen def mais mayuñu dara daf ñuy def dafay échange ak ñun échange boo xamante ni nous on est déficitaire déficitaire là-dessus maintenant après nguur bi nee na kontaan na si Turquie président bi loolu la wax ñu ngi ñu ngi bokk di liggéey baax na Erdogan biir Sénégal baax na mook waa waa dëkkam mais il faut que ñu liggéey ci wàllu équilibre équilibrage bi c'est-à-dire équilibre def de sorte que équilibre am te loolu politique baax dëkk bi ñu produire comme il faut mën a consommer comme il faut amul ce sera toujours comme ça. de communication bu baax parce que pour ñu revenir un peu sur le cas de Eiffage dem ba ci biir ah Yacine ñëwaat pour waxtaanee li nga xamante ni tënkoon nañ ko ba pare euh, euh, euh, dans d'une autre côté d'une autre part il a raison. c'est-à-dire que nguur la looy jël décision ngir sa askan dafa war a leer dafa war a nekk loo xamante ni sóor nga ci say sëtaati sët ñi nga xamante ni ñoom nga yilif jamono ji donc euh, c'est très important man je je favorise c'est-à-dire c'est bien de les appeler peut-être ils ont plus de connaissances plus de ressources que nous mais nañ ko bokk ak ñun c'est-à-dire rallier ils n'ont pas ils plus de connaissances que nous c'est ce que je voulais dire euh, <clears throat> man xam nga lan mooy sama problème man xam mm-hmm. nga lan mooy sama problème pourquoi dëkk yu mag yi mm-hmm. ils ont jeté leur dévolu sur nous on a le pétrole mais mais selon toi non je pose une question je peux répondre. mais bien sûr. Euh, mais mais Afrique marché bu ngandee la marché la on un milliard un milliard Afrique di yéeg un milliard cinq cent lañ jëm ci ay prévi prévision ah, maanaam li ñu yoree bare ñun dañoo yor loo xam ni si àdduna bi ñépp ko soxla. tey jii nii satelit yeeg tout ce qu'on bi nekk Niger Niger gi nga xamante ni daanaka ñetti dëkk ba ñeenti wa juróom bokk yi gën a ñàkk ci àdduna bi Niger la te pourtant Europe li ñu soxla ci uranium yëpp mu ngi mu ngi foofu alors alors Asma ko li nga wax euh, ci contrat bu Eiffage bi man dama jàpp c'est très personnel que loo def di ko defaat rek defin ba moo baaxul woon kon à chaque fois bu ñuy xaatim ay convention wala dara war nañ ci toog saytu ko bu baax a baax ba nga xamante ne du ñu soxlawaat ñëw di ko réviser li paasan wax tamit am na solo mais euh, comme que chronique aussi da ngay indi sa point de vue pour mhm. apporter benn solution bu ndaw euh, mooy que li ñu war a préconiser mooy tey jël suñu ay doomu réew yóbbu leen ci yeneen dëkk yi jàngal ah. leen lu ñuy tabaxee ba bu subaa du ñu soxla kenn mais itam foofu dina am tuuti problème paasan parce que da ngay jël sa doomu jox ko bourse voilà jox ko bourse mu dem jàngi mais bu paree du ñëwaat au bercail day préférer des foofu parce que amaana salaire yi du baax wala mais war na am benn suivi bi nga xamante ne euh, tey jii buñ jëlee suñu ay doomu réew yóbbu leen tàggat leen ci tabax bu subaa bu ñu soxlee suñu stade bopp wala leneen ak leneen ñun ñun ñoo koy defaral suñu bopp te duñu leb kenn duñu c'est-à-dire Yacine damay revenir ci sa rubrique c'est pour ça d'où l'importance de ta rubrique c'est-à-dire loolu xam nga lan moo li ci ëpp ah pas Assane mm-hmm. mooy ñoom ils ne sont pas euh, euh, payés à leur juste valeur. valeur tout à fait da jàng ba dee toog fa am 1500 euros bokk sa benn appartement ak sa benn xarit parce que loolu moo xew Europe euh, euh, moo lay gënal fuuf que nga ñëw fii di laal 200000. Mm-hmm. pour par exemple un ingénieur. Mm -hmm. Euh, en bâtiment par mm-hmm. exemple mm-hmm. en génie civil par mm-hmm. exemple donc ñooñu euh, dafa dafa c'est ce que je dis il faut qu'on revoie la structuration de l'éducation au Sénégal mais surtout de l'encouragement de la jeunesse pour moi c'est ça un bon Sénégal plan Sénégal émergent c'est la source. li nga li ngay wax ni kenn naatable wu ko parce que bu fekkente ne dañ lay fay lu bëri à l'extérieur fii ñu lay fay tuuti tu préfères rester à l'extérieur mais il faut se dire que tant que ñu ngi koy def donne bi du mës a changer étrangère ñooy ñëw suñu réew du ñu tabaxal ay dëkk di ñu xoj ba duñu am le choix leneen itam lu Pa Assane ju xam naa fa laay jeexalee mooy lu choix du Sénégal léegi dañuy gis ay réew yu bëri dañuy daw si di màngaan si di ut si Sénégal parce que Sénégal déjà position bi mu occupé position géographique nekk na lieu boo xamante ne boo fa installé woo di nga gaaw pénétrer yeneen pays d'Afrique yi leneen itam lu am solo mooy stabilité politique bi nga xamante ne amaana am nañ ko euh, yeneen réew yi nga xamante ne tey di nga fa investir guerre am fa wala leneen ak leneen sa xaalis ndax saay Sénégal yeggaguñu ci phase boobu. juste pour contribuer euh, si wàllu dem ak dikk bi dem ak dikk bi ñun ñii sénégalais ñu mën a war a mën a dugg par exemple Turquie sans pour autant ñu am problème Turquie kañ la fi am ambassade. 1963 n'est-ce pas mm-hmm. ñun 2006 mm-hmm. la ñu am ñun. Mm-hmm. Euh, euh, ambassade fële ci seen dëkk. te pourtant pour nga am visa Turquie. ah non parfois mën na dem ba trois mois doo si jot. maa la ko wax. Ah, ah, il vient de mille cinq cent la ñu wax sénégalais ah. ah. Euh, ci diggante bi mu fi ñëwee bon xam naa muccaat bi la ko et aussi il faut saytu aussi conditions yi sénégalais yi di nekk foofu ñun dañoo xam teranga ba xam nga xamante ni sa noonu sax day ñëw am nu mu toll ndeysaan nga yërëm ko tatagal ko teg ko toppatoo ko waaye nañu xoolaat bu baax a baax ndaxte ñun ñoo war a gënal suñu bopp ñëpp askan bi daal koom may ñor waaye roxee wax na dëgg del indiwaale xaalis bi fii. beneen yoon dinaa indi xaalis. comme ah, comme ñuy naan sax internet yi naan na maa ngi yeew ci suba teel te amaguma xaalis. doom dafa egsi ci plateau bi xam naa dama koy wax prochainement buy ñëw indaaleel yaayam xaalis. macha allah ma ji la ñu ji la dalal kilifa kilifa gi. man fay de waaye sama capital bi de man mën naa koo jox. ah capital ma de man mën naa ko jox. mu sa yaay la de. Ah, donc bu bëggee ni ma jox ko de bu bëggee ni ma jox ko toog. <laughs> doom bu góor nee nee nañ doom bu góor daal. yaayam mooy waaw ndayam moo tax ko su dee d' accord na ko sama capital. d' accord nga yaay booy. loolu duñ ko wax ci plateau bi. ci ci ah man kay ko. ne ko waaw. non bu dee junni la ma jox ko bu dee un million. on a le coup jox la xam nga xolu yërmande. yaay day yërëm yaay du ko sonal du ko man de su ne su dee junni ah. ah. laa yor. fii ma toog ma jox ko. bu dee un million laa yor ma jox ko. te nga ne waaw. non non xolu yërmande internet <laughs> mu fii de. ñu <laughs> da ngay nangu da ngay mu gën a barkeel ci moom nangul waaye. fii de. xolu xolu yërmande. su ma jox ma rek ma jox ko <laughs> <laughs> sama yaay la kay. waaw xolu yërmande. nee na xolu yërmande ci daal laa yoru daal macha allah ah, daal daal daal daal daal. ay bu doon ñeneen ñi. ay bu doon man sax nag. <laughs> nangu naa mais yaay waxal rek. non waxal waxal. dama bëgg dama bëgg bu am. li la war ci kër ga dafa bëri dama laa yërëm. Ah, man de boo ko boo ko waxee rek moom ma këpp ko léegi. ndeysaan ndeysaan wax dëgg yàlla tàkk tàkk. ñu ji la dalal ji la nuyu. sànq paasan. <laughs> Mhm. ndaw si. affaire économie bi ngeen koy wax. Mhm. Sénégal ñëpp riir ñëw wutal si ko yooyu joxe nga explication yoo xam ni moom vraiment mhm. même moom yaay booy tamit wax na ko. Mhm. kii wax léegi ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la. gis nga gis nga maghrébien yi. bu ñu la recevoir. football ñu dalal la. Ligue des champions wala éliminatoire coupe d'Afrique wala dara. xoolal dañ lay gagné. condition yëpp la ñuy teg ñoom pour su Sénégal ñëwee wala ganat fii duñ fi jëlee trois points duñ fi am un point. te gis nga bu ko laajee xam nañu def bu dee Algérie anaba lañ lay yóbbu. Égypte nag moom bu ñu bëggee coow pire ñu yóbbu la biir Caire seen biir Esad ba yàlla suturaal sud africain yi ñoom maanaam dañuy teg condition yoo xam ni. ca hôtel ba aéroport ba ba ngay wàccat Sénégal nag c'est le contraire gis nga teraanga ji baax na de xaw man bëgguma defaral nit teraanga teraanga teraanga teraanga ba boo ñëwee géej waaye yàpp ma mm-hmm. dama laa bëgg bëgg bëgg bëgg yow nga jógee Grand Yoff wala nga jógee Médina wala nga jógee Paris wala fenn ñëw ma war la defal teraanga man biir géejawaay waaye wane fa ab matadi ba nga commencé di ma fa yab sama biir koñ géejawaay déet dama lay jubbanti nag déet doo ma yaakaar yab ma mais Fassane Sénégal mooy fii match international match capital suñu policier bu bu ñu armé woo ba taxaw ba ñu jël l'équipe adverse ba teg ko ci ay conditions ba jël seeni supporters teg leen ci conditions yoo xam ne boo loos ci suñu wetu ministre bi lañ leen di teg dégg nga ñun nag na si supporters yi boo leen sëqatee nañ leen door tey ba ngeen rek même tëgg gi sax wuy ma même tëgg gi sax def leen ndànk ndànk comme si yow Algérie soixante-dix kii Euh, Argentine moo organisé coupe du monde dañ ko organisé ne coupe bi du génn dëkk bi. ñoom Kempes sama grand frère nee na ma ñoom Kempes ak ñoom jamonoy Passarella. ak ñoom Ardiles. <laughs> pistolet daa génn ci stade bi. Hmm? dañ ne coupe bi du génn te Hollande bi ñu doon dajal mooy Hollande ñoom Johan Cruyff.